asalaamaaleykum mbokk Sénégal ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi am mbégte ñëwaat te di leen ndokkale ci bés bu tedd bi di bésu korité ginaaw bu ñu jàllee weeru koor ñu ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu ñaan maa ngi yónnee message mboolem kilifa diine yi ci réew mi di leen ndokkale ci bés bu màgg bi mboolem waa Sénégal ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye itam suñu borom def na beren waxtu wi nga xam yaa ngi feete korité catholique yi itam ñoom ñu ngi feete fête de l'Ascension loolu nag muy bés bu màgg boo xam ne ñaari communauté yi ñoo ko bokk may ndokkal itam suñu mbokku chrétien yi si seen bés bu màgg bi di bésu rañaan si ñoom. Ah, mbokk yi waxtu wi nga xam ne ñu ngi féete fi korité gis nañu ne ci Palestine fële ci Israël xeex bu metti mu ngi fay am fan yi si eh, diggante israéliens yi ak palestiniens yi. muy lu metti loo xam ne eh, def nañ communiqué suñu gouvernement d'ailleurs ngir woote jàmm waaye it wax ku nekk ci. ñu nekk ci foofu muy gouvernement bu Israël euh, ñu teggi seen loxo ci mbir moomule waaye ñuy woo itam ci yenn si palestiniens yi nga xam ne ñu ngi ci xare bi ñu teggi seen loxo ndax kat euh, Sénégal non seulement moom moo jiite kuréel gi yor ci wàllu euh, mbootaayu xeet yi wàllu ak doomu Palestine depuis 1976 1977 lu yàgg-yàgg la kon war nañu fu mbir amee ñu yëkkati suñu kàddu woote ngir jàmm ñëwaat ci Palestine ñoom ñu waxtaan su ko defee Palestine mën a am réewam mën a am état am Israël am état am ñu mën a bokk dëkk loolu donc ñu ngi koy ñaan ngir jàmm ji mën a saxaat yaatuwaat foofu ci Palestine di condamné tam violence yi nga xam ne euh, muy ñaawtee fi fa am ñu koy euh, condamné bu baax a baax euh, ren nag gis nañu ne korité mu ngi tombe waat toujours ci mbas mi ndax jeexagu fi donte wàññeeku na ñu war a bàyyiwaat xel lépp lu ñuy def te di continuer di wéy si di takk masque waaye di wéy itam si di moytandiku te it ñi nga xam ne war nañ mën a jot si ñàkku bi ñu mën a dem ñàkku yàlla def na amaat nañu euh, benn programme bu am solo lu tolloog ñetti téeméeri junni ci ay vaccin réewum Chine euh, may nañu ko ñu war a mën a continuer kon programme boobu ginnaaw bi ñu amee yeneen ñetti téeméeri junni ak ñaar fukk ñeent yi nga xam ne programme COVAX moo ko defoon kon mu mel ni xeex boobu ñuy xeex mbas mi ba tey mu ngi fi ma ci gërëm nag kër docteur di ci gërëm kilifa diine yi seen taxawaay kilifa aada yi waaye surtout média yi Euh, seen taxawaay rafet na si homme de culture et de lettres Sénégal yëpp daal ci gàttal ñu ngi bàllu àq ñëpp te di bàll àq ñëpp ndax bésum bàllante àq la bésum ah, demalante la kon nag yal nañu yàlla may ñu teewaat ko waxtu wi déwén ci anam yu gën a rafet anam yu gën a yaatu ba yàlla yokk jàmm ci Sénégal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam